mbëbës bi bi amul dara lu koy gàllankoor loolee nag li ko waral moo di opération de déguerpissement yi ñu fi amal alxamis bi ñu génn ñaari jaaykat yi le nag léegi daanaka butiku mbagg lañ daal di yore ñoom nag li ñuy ñaan moo di ñu daal di leen jox ay ndàmpaay ni ñu ko defee ngir seen yeneen moroom yi. waa mairie ñëw na nee na ñu ne amul droit pour toogu clients fekk ñu ci biti mais. yaa xam na affaire bi yombul. ah yaakaar nañ ñu koy parce que sa waay ki ñëw ramasse say bagage yóbbu ko mairie comprendre nga sànni ko foofu nga dem fay ñu soog la ko jox. ca boobu waxtu nag ñi yeewoo ca Grand Dakar di rafetlu li ñu jëlee jaaykat yi ci kaw tali bi. dama koy rafet ndax bu fekkee euh, euh, njëriñu benn nit wala wala fukki nit. moom moom mooy moom mooy xañ ñeneen ñi ñoo xam ne téeméeri téeméeri junni nit ñoo xam ne dañoo war a dañoo war a circuler normalement ñu xañ leen loolu tamit mais sincèrement ça ne vaut pas le ñu leen bàyyee piétons yi dañuy obligé jaar si tali wala si biir fleur yi ku mu nga aju ci kaw jaay yoon bii c'est pour yemuñu ci loolu ñu daal di ñaax rek njiit yi ba ñu daal di biiral yile opération yi ñu amal. am na yeneen côté yoo xam ne moom moo gën a xatati waaw. waaw donc na dañu bëgg daal euh, buñ ci def xaaj ak seen. ku nekk bu jëlee wàllam erreur du am wala buy am du bëri. ci fan génnoo nag façon njaay bu nekk ngay daal di gis euh, ci kaw trottoir yi rawatina euh, ci peggu bus rapide transit bi moo taxit bañ fa jëlee yile jaaykat ba pare mairie Grand Dakar moo ngi woy di amale opération di ko nemmeeku bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu tàllal suñu lantinoor ba ci ñetti yoon dinañ ñëw ngir nemmeeku bu dee jaaykat yi. ñëwaataguñu.